jàmm yéen ñuy seetaan ci sunu Buzz TV ñu ngi waat ak ki nga xamante ni mooy oustaz Xaarim Sarr ñu fas yéenee waxtaane ci lu bëree bëri actualité yi même doomu daara bi nga xamante ni Ousmane Sonko taxawal na ko bëgg na mu indi ñu ci ay xalaatam yu bëree bëri Ousmane Sonko demoon na ci xalifa laayeen yi waxtaan ak moom waxtaan bu bëri euh, ay points yu bëri daal fas yéene nañ ko waxtaanee ñu nag oustaz Xaarim Sarr ginnaaw bi mu nuyoo ñu lay nuyu bu baax. auzu billahi mina shaytaani rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokki téléspectateurs eh, Senbuzz TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ak ñi nga xam ne ay auditeurs lañ ñëpp rek di leen siyaara bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm di suñu réew suñu borom def jàmm. Sonko mu seeti woon xalifa laayeen yi muy waxtaan ak moom banaan ko sa ñoñ yi nañ leen téye Ousmane Sonko euh, bi muy bi muy jëlee kàddu gi ni ko ah ki nga xamante ni mooy Macky Sall kat dafa bëgg man ma bañ a bokk loolu moo waral coow li ci réew mi mu ni ko ah loolu de xawma ko woon banaan ko euh, tegal lépp si loxo si yàlla ban commentaire nga am ci loolu waaw kay jërëjëf euh, xam nga boo gisee kilifa yi li ma doon wax keroog naan Mm-hmm. dañoo war di jot information. Mm-hmm. ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñëpp. Mm-hmm. dara xam information yi nga xam ne day am ci réew mi. bu ko defee lenn lu ci nekk mu jël ca taxawaay bu mat sëkk. waaye nag bu fekkente ne kilifa yu bare bare bari duñ xam dëgg gi lu dul ne rek réew mi daa dem ba tàkk ñu doo koo xam. su fekkente ne benn information am na ñu ñëw wax leen lu mel noonu kat war nañoo xool ne ñi leen jege waxuñu leen dëgg. su ko defee ñu woo leen waxtaan wala boog bu ñu leen mënee remplacer remplacer ñu bari ñu remplacer leen seet ñoo xam ne information rek lañ leen di andi ni nga xamee ne réew moo dem président de la république ba maanaam day am ñu koy jox information maanaam lépp lu xew ay renseignements généraux lépp lu xew dañ ko koy mën a wax lépp lu xew ci guddi gi ñu mën ko ko wax lu xew ci bëccëg gi mën ko ko wax nga xam ne lépp luy xew balaa tëdd rek da koy xam kilifa yi nga xam ne itam ñoom daa am ñu bootu ci seen gannaaw doon mbooloo mu bari dañoo war a fexe ba wut ay nit yoo xam ne ñu nu wóoru lañ doon ñu ragal yàlla kenn mën leen a bañ a jënd ñu yoral leen seen lépp comme am nañ mooy yi su ko defee ñooñu itam na jàng ñoo xam ne ñu xam fu ñu teg seen tànk lañ ba kenn du leen indil fausse information su ko defee lépp sëñ bi da koo war di yëg balaa tëdd da koo war a xam waaye bu fekkente ne dañ ko koy nëbbu ba nga xam ne nit yi jóge fa ñëw daan na ko ah sëñ bi kat nangam ak nangam moo xew. su boobaa war naa woo ñu ko jege ni leen lan moo tax nangam xew ci dëkk bi tamal yëguma ko kon loolu ab taxawaay la kon ñoom day mel ne seen rôle daal di si côté boobu. beneen bi ci des itam mooy maanaam Ousmane président Ousmane Sonko bu fekkee dafa ñëw ci xalifa Laayeen yi ne leen. Macky Sall kat daf maa bëgg a génnee ci élection yi. maanaam mënu ko Macky Sall da kaa mënu. xam nga lu tax mënu ko mooy. peuple moo yore doore. xam nga léeg-léeg nga dégg ko naan ah sa waay kat li yor ci ay ngànnaay. sawaay li mu yor ci ay nangam nangam pexe yi muy teg ak siis yi nga xam ne dañ koo déggal mën a leen bu doon loolu Firawna du daanu mhm. Firawna da daan jàpp di rey kii nag day jàpp di tëj mhm. kon nag gis nga nit yi saa yu ñu jógee bëgg mbir soppeeku mhm. mbir ma day soppeeku nam soppee woon nguuru Tunis bi ga ay nit nag su fekkee dañoo toog bëgguñu dara soppeeku mu def leen nam def président euh, euh, Cameroun ba muy euh, Paul Kagame xaw ma koy waxee Paul Biya defe naa na ci nguur gi buy dox sax day sukkootu dañ koy téye nga xam ne waa réew ma bu ñu amoon fulla ak fayda nega ni jóge na fa bu yàgg kon kooku doxalatul koo xam ne booy dox sax dañ lay téye xam nga ne mm-hmm. doxalatul dara waaye ña ko wër système boobaa leen arrangé mm-hmm. ay nit nag inna laa laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim mbir mi bu fekkente ne nit ki daa bëgg mu changé su bëggee changé yàlla jàppale ko ca waaye su fekkee nit ki yàlla moom da koy seetaan rek am yambar moom dara jigu ko kenn du ko dimbali. Mhm. kon nag mbir mu nekk nit ki day dimbali boppam bu ko defee yàlla man ko caa fekk si dimbali ko. Mhm. su ko defee nag boo gisee ma na la Macky Sall mënu ko mooy. Mhm. peuple bi nga xam ne ñoo topp président Ousmane Sonko. li sëñ Cheikh doon wax keroog ca ndaje ma rek mooy Macky Sall ci boppam amul information. parce que ba amoon information gis nga galgal yii muy teg dana ko teg ci suuf galgal yii muy teg dana ko teg ci suuf parce que moom day pexe. yàlla di pexe wa mhm. makaru wa makarallaahu mhm. wallaahu xayrul maakiriin mhm. suñ boroom képp koo xam ne yaa ngi pexe itam suñ boroom moom daa jëfandikoo rek ni doomu aadama di waxe daan na sooy pexe man tamit maa ngi pexe te sama pexe mooy not mooy féete kaw mbir mu ci nekk rek yàlla moom moo mujj ga waaye bu fekkente ne nit ki moom ay pexem rek la yor te peuple bi yàlla dénk leen doole su boobaa nag lépp loo jéem daa fekk peuple baa koy nangu rek waaye bu peuple bi taxawee ci sa kanam nee na du fi amee yàgg yàgg da ngay dellu ginnaaw yàgg-yàgg da ngay dellu ginnaaw parce que gis nga armée bii mu yaakaar saa yu nguur bu demee ba ba yëkkëru dara lu dul ay policier ki gendarme ak i armée booba nguur kon booba ngay xam ne nguur ko dëgëratu kon nag lii muy jéem booy ba mu jéem koo teg ci suuf parce que bu ci duggee di ko jig de te bu nee la amoon du amaat ñee la amoon du amaat bis bu ndajeewaatee kon dana metti kon nag loolu na ci bàyyi xel na xam ne kattan yàlla dong nga ko am te nag wax dëgg yàlla nag yàlla teral na ko ndax koo xam ne yàlla jox na la nguur jox la ngay dirise mu comp ci cëram ya tuuti am lu mu la ca mosal wax dëgg yàlla boo dee gor saa yu àpp ba jeexee war nga ko mën a delloo ndax doo ko yor ba faw yàgg yàgg danga fi jóge ginnaaw nag xam nga ne yàgg yàgg danga fi jóge su boobaa rafetalal sa gannaaw ak sa kanam yépp su ko defee nga xam ne kat cër bi la yàlla joxoon delloowaat nga ko ko bu fekkente ne boo gisee suñu borom di wax ci alxuraan naan walaw basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadri ma yasha dafa am ñoo xam ne bu fekkonte ne xam nga doomu aadama bu ne day ñaan taraanga waaye suñ borom nee na su ma joxoon ñëpp taraanga kon dañuy bew kon damay xool ñi nga xam ne jàpp naa ne su ma leen joxe alal ñenn ñi xëy na duñ bew ma jox leen alal ngir ñu dimbali seen i mbokk ñenn ñi dama leen di jox alal ngir nattoo leen ko bu fekkente ne nag yàlla daf laa jox nguur jox la ay moyens jox la lépp nga yilif ñëpp ba ñi nga xa te yow bu fekkente ne ci wàllu diina la bu doon ci la ñu xool duñ la fal bu doon ci wàllu askan la ñuy xool duñ la fal nga xam ne démocratie rek moo tax yow nga nga ñëw ci pouvoir bi kon war ngaa jéem a rafetal bu baax a baax a baax ba nga xam ne bu ëllëgee boo fi jógee itam bu boobaa nga mën a ñëwaat ci réew mi te doo am problème doo am ak kenn jafe-jafe ni nga xamee ne nag bu fekkente ne ñoom dañ fee nekkal waa bitim réew ni nga xam ne noonu la Abdou Diouf defoon bi mu fi jógee daa dem tëdd ci France Euh, Senghor bi mu fi nekkee bi mu fi jógee daa dem tëddi France. Mhm. Abdoulaye Wade bi mu fi jógee dana dem dana ñëw. donte nag féetewu fi carrément bañ xam ne fi la féete waaye léeg mu ñëw fi am ñëpp jàmm waaye moom mi itam ginnaaw bu fi jógee itam fa su fi yéenee toog ah su boobaa itam mën naa def lu ko neex waaye nag am réew moom boo fa amee ay mbokk juddoo fa màgge fa réew moom moom réew mu ko dàq ci yow moom yaakaaruma ne di ko am. bu dee nit ko am jomb. Mhm. Ousmane Sonko taxawal li ñu naan doomu daara. mu def lancement bi yow sax yaa ngi fa woon bëggoon nañ nga nga nga indi lu ci ak yàkkali lan moo waral mu def loolu te boole am na leneen lu ñu fa seetlu muy diaboliser bi nga xamante ni kat nemmeeku nañ ko ki nga xamante ni Macky Sall Antoine léeg-léeg seen i baat daal ñu mel ni kuy kuy am lu ñuy dóor usmaan Sonko usmaan Sonko def na fa discours bu am solo bëgg nañ daal doomu daara la fa amoon lépp nga nga defal mu ban seetlu nga fa am daal. waaw seetlu bi ma ci jëkk am rek mooy. président Ousmane Sonko kenn la ci seen daara yi ndax ku gis lam na mu waxee bu doon ab seen daara yi daanaka doon rek lay waxe ndax wax moom balaa mën a tegu ci ay addila yu dëgër mooy li ngay wax na nga ko sukkandiku ci alxuraan wala nga sukkandiku ci hadis amul leneen du ko gën a wér waaye boo gisee tamit lii lay xamal ne réew mi dafa dellu ginnaaw rek mooy su fekkente ne dañoo dem ba doomi jullit su waxee ab aaya alxuraan ñëpp maanaam mu mu yéem kon dañuy xam ne réew moom dese nañoo dund ci lislaam su ko defee nag président Ousmane Sonko comme yàlla dimbali na ko nag mu dem donte jàng na tubaab waaye yàlla dimbali na ko ci diine ba nga xam ne yu baree baree bari mu mën koo wax wax ju leer naññi bokkut ak ñi nga xam ne dañ leen ko bindal ci français ñu koy jéem a traduire moom traduire da koo jàng carrément. kon ki nga xam ne dafa jàng daa bokkut ak ki nga xam ne dañ koy traduiral muy wax. parce que bu buñ la ko traduiralee boo dee wax sax ni ngay demee araf doo ko bàyyi sax xel kon li ñu traduire bokkut ak yaxub alquran. moo tax alxuraan daal kenn mënu koo traduire ci benn langue ba mu jub nañ ko bàyyi ci arab bi mu nekk rek bi lisaanin mu mubiin nañ ko bàyyi foofa rek làmmiñu araab la moo tax képp ku ko bëgg a jàng danga koy jàng ci làkku arab waaye saa yoo ko bëggee traduire ci neneen rek su boobaa du jub su ko defee ne président Ousmane Sonko jataay bi jataay bu am solo la waaye nemmeeku nañ ci ne diabolisation bi ñu ko doon diaboliser kon day mel ne jàllul ndax bu fekkonte na jàll na région bu ci nekk rek am na ay kilifa yu fa yu fa teewal waa région ba teewal fa kilifa ya fa nekk. kon loola la muy tekki mooy la muy tekki rek mooy kon jabolise bi ñu ko doon jabolise jàllu benn ñaareel bi itam mooy président Ousmane Sonko itam fekk na ca jataay ba lu xaw a bari ba noppi itam bi nga xamee ne fekk na ca jataay ba lu bari itam bi mu paree nga xam ne dem na ba war a jël kàddu ñu ubbil ko ci alxuraan c'est la première fois ab politicien ñëw. di wax ñu koy ubbil ay aaye alxuraan su ko defee bu ñu koy ubbilee aaye alxuraan ba pare waxtu julli wi jot dafa dafa pause daan na dañuy julli ba pare waaye ndax loolu lañ bëggoon a def ba noppi far kii ubbi daal koy waaye nag ay teggi na ko mu dagg alxuraan ji muy jàng mu bàyyi ko ba mu jàng ba noppi ñu mu dem julli ànd ak ñi nga xam ne dañuy julli ak ñu bare bare bari ñu dem julli ba pare bi ñu jullee ba noppi nag delsi mu doog a jël kàddu kàddu gi mu njëkk a jël bi mu ñëwee rek ba tam inna alhamdulilahi euh, booba rek la mbooloo mi tàmbalee xam ne kat kii wuute nag ñi fi newoon da nga mas a dégg benn politicien buy nuyoo noonu waaye bi mu ko waxee wax ju jub ba pare itam mu suñu souligné fa ay points yu am solo mhm. bi ci jëkk mooy mhm. suñ borom ci boppam dafa bind doomu aadama yi mhm. ba pare wuutale xeet yi bu ko sooboon kay mu bind ñëpp bokk benn gëm-gëm bokk lenn luñ gëm bokk benn xeet bu ko sooboon mu def ko waaye inna akramakum indallahi at maanaam inna yaa ayyuha naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa naa ko jaalnaakum shuuba wa xabaila li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum suñ borom dafa bind nit ñi wuutale leen waaye wuutale gi njariñ la góor ak jigéen xeet woo dem rek suñ borom bind na ko fa nga xam ne dañuy déggante ay langue mën a jariñante waaye nag defu ko la lu dul nag bëgg rek ñu xamante mën a jariñante parce que bu fekkonte ne ñëpp dañoo bokk benn xeet du am chance te itam bu boobaa du am xorom du am ka kon nag xeet xeet gi nga xam ne dafa def ay pël def ay wolof def ay naar def ay tubaab nga xam ne xeet wu ci nekk rek ginnaaw bi mu defee loolu ba der yi wuute xam nga der yi moom bu wuutee itam mhm. léegi nag mu ñëw wuute la nag làmmiñ yi mhm. xam nga ne làmmiñ yi làmmiñ wuute lañ waaye teewul nag kenn ku ci nekk mën ngaa diggante ak sa moroom ginnaaw bi mu defee loolu nag mu ne nag loolu ma def yow yépp nag li ma ci gënal nag mooy ki gën a ragal yàlla ku gën a ragal yàlla rek yaa ci man waaye kii dafa sant nangam kii daa sant nangam wala kii xeet sàngam la moo gën xeet sàngam déedéet loolu amu fi li gën li gën daal mooy ki gën a ragal yàlla rek moo gën loolu président Ousmane Sonko euh, fa aaye boobu te loolu nag lu leer nañ ñi la bi ci des itam mooy ay nit su fekkente ne dañuy dem ci ñoom di leen di di fa wax wax joo xam ne du dëgg nga wax jam wax moom nee na mës sa toog ci benn kilifa di fa tudd beneen politicien kon loolu la muy tekki mooy kilifa yi bu fa demee moom politique yóbbu ko fa daa xëy na day dem siyaare neen ak bëgg a xam ne boppam waaye politique yóbbu ko ndax bu ko fa politique doon yóbbu su demee day wax bon boni keneen waaye nee na musumaa toog ci benn kilifa diine dem siyaare ji ko di fa tudd benn politicien kon loolu itam lu lu nit ñi la beneen bi ci des itam mooy la fekk rek moom mu nekk sëriñu daara wala boog ñu ne yor na daara ca biir këram te ki nga xam ne daa yor daara ca biir këram ñu ne kat bu fajar gi léeg-léeg day jóg di téyele kon kooku sëriñu daara lañ ko mën a jàppe kon nag yaakaar naa ne boo gisee sëriñ daara yi bootu ci wetam dafa mel ne li wolof yi di wax naan ñi bokk teen ñooy laxasoo ay goj kon daa fekkoon liy nelaw ci seen daara yi te amaguñ woon mooyee man koo génne ci seen làmmiñ mhm. wala ñu jaar fa moom mu ñëw daal koy porté porté boobu nga ko porté nag moo tax li mu fekkoon muy nelaw ci seen daara ñu ñëw ànd ak moom mhm. ndax moo yee loola ci ñoom beneen bi ci des itam Cheikh Bara Ndiaye dafaa wax lu am solo mhm. li am solo mooy ki maanaam ibaadu beeg xam nga dañoo defoon benn kuréel tudde ko AES la yaakaar naa te maam Cheikh Mbacké jiite woon ko mais kuréel ba est-ce que yaa ngi koy déggati man déggatuma ko gisatuma benn activité boo xam ne mën nañ ko man gisatuma ko waaye xam nga lu ko war a ci li ma jàpp mooy li see baar a wax rek mooy ibaa du beeg tijaan beeg murid beeg yooyu yëpp dañoo formé woon benn kuréel daan ah ñeekat dañuy xas mag ñi léegi kon nañ def benn kuréel boo xam ne dañuy sàmm ndonay Tidiane baag Murit ba ñëpp dañoo booloo toog bokk benn jataay di waxtaan ci projet président Ousmane Sonko. loolu yaakaar naa ne kon ba mu ñëwee dindi na lañ fa doon nekk di ŋaayoo ko xiiroo bu njëkk daa mel ne moom daa ñëw dindi ko. moo tax boo gisee ñenn ñi di dem ci kilifa yi naan dañ koy jaboliser ñu baree bari système bii da leen arrangé rek maanaam système mu minorité di dund ci kaw majorité da leen arrangé mais loolu daa war a jeex gis nga nit bu bëggee tedd day liggéey maanaam képp koo xam ne da ngaa bëgg taraanga da nangoo liggéey. su la yàlla boolee ca ña war a am yàlla dana la wërsëgal su fekkente ne yàlla daf laa xañit xañ nga du pertement bu boobaa ëllëg yow mal xiyaam muñ gi nga doon muñ suñ borom dala koy fay kon dara du fi pertement ki yàlla jox alal it may na ko possibilité itam mu mën caa rëdd yoon àjjanaam alxuraan fu mu waxee aqiimu salaata wa aatu zakaata génnee asaka julli waaye génnee asaka itam boo ko defee ba noppi itam nga fexe bay joxe joxe cooberewu joxe cooberewu nag euh, dafa am solo trop di dimbali say mbokk dimbali ñi nga tane loolu lépp ci la bokk loolu nag bu fekkente ne nit ki da koo bëgg euh, di ko def kon man nay ñaan yàlla yàlla xéewalal ko donte ku ne loolu lay ñaan waaye nag suñu borom nee na bu ma xañee ñii xañ nga kat damaa xam ni tax ma def ko ndax xam naa lu ñu xamul inni laa ma la ta'lamun la ma waxoon malaaka yi rek xam naa lu ngeen xamul kon képp ko yàlla teg ak ñàkk sabab lul di liggéey euh, li nga war a def nga di ko def te ànd ak muñ boo muñ ko du pertement yàlla dal koy fay moom itam mën na caa am yoonu àjjana suñ borom ubbil na ko bunt yooyu yëpp kon kenn ku ci nekk bu nekkoo ci pertement kon su ko defee nag président Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu ko yàlla indilee damay wax ne xam nga waykat bi daa waxoon ne bu fi yemoon sax mu neex waaye man du ma ne bu fi yemoon mu neex waaye bu continuer day gën a neex ndax nga lu tax mooy président Ousmane Sonko dafa dafa def ci Sénégal yu lu bare bare bare xam nga fi mu ne nii xëy na xëy na fi mu ne nii kat ñi ngi naan day donoose day donoose waaye fi mu ne sàcc bu bees amul sàcc yuy màggat yi rek la ñuy vilipender waaye gis nga président Ousmane bi mu génnee ba léegi. Mhm. sàcc yëpp daal téye nañ seen i loxo. léegi nag sàcc yu yàggee yee ñuy feeñal. moom la ñuy feeñal kenn ku ci nekk la nga luubaloon rek la ñuy feeñal waaye sàcc yu bees yi moom tëlatuñ sàcc. Mhm. Mm. Euh, macha allah am na solo lool looy wax tamit euh, fii ñu nekk di tuubaa Ousmane Sonko ñëwoon fi benn riir bu rëy amoon fi booba léegi ñu lay doogi am am ñoo xam ne dañuy génn def ay confirence de presse di ko yàq loo xamante ne lu baree bare la ñi naan ay jumaaja dafaa def lii ñi naan dafaa def lee ban ban conseil nga leen di jox ñi nga xam ne dañoo nekk Touba xam nga président Ousmane Sonko ni ko yàlla melal ku mu naqari da ngay sonn yàlla mooy seen ab jaam innal fadla bi yadillahi yuti may yasha yàlla mooy xool ci ngënee ku ko neex mu jël ca jox la Euh, Souleymane gis nga di ko yàlla defaloon ci ay xéewal waaye gis nga euh, taxul mu bew taxul mu jàpp ne dafa gën kenn wala dara yàlla na soob mu defal ko loo xam ne kenn dootu ko am ci mbindee bi kenn dootu ko am président Ousmane Sonko nag jamono bii ñu toll yàlla ci boppam moo def xolu senegal yi jublu ko ñëw na si jumaa ji ma di la wax ne gis nga bi muy ñëw ci jumaa ji sëriñ Cheikh Thioro Mbacke ak ku ñuy wax sëriñ Maam Thierno Mbacke bokk nañ ci ñi nga xam ne dem nañ jumaa waxtaan ak safinatul amaan mhm. ban tegal leen ay sart sart yi ñu leen tegal mhm. ñu ñu nangu critères yëpp ñu nangu ko biñ ko nangoo ba noppi bi ñëwee sax dañ ne président Ousmane Sonko yow kat ñeenti nit nga mën a àndal mu ne leen ñeent sax bari na mën naa koo def ñett bi mu demee ba julli ba noppi bi mu bi mu jullee ba noppi sëñ Muntaxa ñëw fa xam nga ñu bari da ngay dégg ñuy jëm dana sëñ bi du ma dem sa kër ah, dama lay xaar ci jumaa ji ba nga ñëw fi ndax ma <laughs> loolu ay kàcc la ñu koy wax sax xam nañ ne dañuy fen Euh. léegi président Ousmane Sonko bi mu jullee ba pare. dafa dafa bëgg a gis sëñ bi. du Amaan ne ko loolu kat nekkul ci suñ loxo. biñ demee waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo encadré sëñ bi ñu nangul ko loola mu dem siyaare sëñ bi waxtaan ak moom. xam nga dégg nga Moustapha Messere mi nga xam ne fenkat la. bokk nañ groupe. donte nag du du tontu ci samay message dara. ndax moom waxewul xam-xam. naan ay ñëw mu mësa kii ak moom bu ñëwee da koy nangam ak nangam ñu génneel ko ab kii boo xam ne moo Ousmane Sonko ñoo toog di waxtaan. xanaa barab baraw sëñ bi waaw. xanaa ñaari nit kay bala ñoo waxtaan xanaa faaw nuyoo am beneen bi ci des itam mooy dégg nga koy wax ba naan maanaam tàmmu fen baaxut tàmmu fen a tàmmu fen ba naan dañoo jël ay pono taaj ko biir jumaa mais loolu ku ne xam nga ne loolu wax ju yoonu dama ne penc mi wër jumaa ji kenn ñi mu fee taal pono waxuma laa dugg ba ci biir jumaa xam nga gis nga nit buy wax li ñuy wax li yo loolu yonente bi alayhi salaatu salaam waxoon musaylamatul kazzab maanaam gis nga tàmmu fen baaxul tàmmu fen a tax yonente bi alayhi salaam tudde ko musaylamatul kazzab waaye ba tey am na fi am na ñoo xam ne dañoo tàmm fen ba suñuy wax dara ngir jëbëri si nit sax ay fen da cay duggaale moo tax foo génn ñu waar leen foo génn ñu waar leen mais dafa am yoo xam ne dafa ñaaw tey li leen ko yóbbee nag mooy bañ lu yàlla dogal rek nag kii kat sénégalais yi bëgg nañ ko yàllaa ko def ci nit ñi jëndul leen joxu leen xaalis joxu leen dara bu dee alal la am nañu ko ëppale fuuf bu dee ab judd la am na ñoo xam ne fañ juddoo jàpp nañ ne kat ñoo gën a ci askan ci leen jàpp ñoom ñoom laa wax de jàpp ñoom te te téyewut lam am moom amuñu ko beneen bi ci des itam koo gis mu génn naan ay li fi ah, li fi amoon dootuñu ko nangook mm-hmm. suñu bakkan lañ ci teg nangam ak nangam daa nekku ci la ko sëñ tubaa digal mm-hmm. waaye ku nekk ci li la sëñ tubaa digal kenn du la déranger parce que gis nga nit ñi dañoo bëgg ku leen waxal ay bànneex maanaam jaar-jaari sëñ bi doo ko waxtaane waaye li sëñ bi bind ci tawhid li mu bind ci ak jaamu yàlla nanguwuñ koo wax ku ko wax sax ñu ne daa weddi sëñ bi mm-hmm. wala day contre sëñ bi sëriñ tubaa ci boppam ñi ko séq ñu ci baree baree bari dañ koo jàppe groupe whatsapp ñooy xool ku ñuy génnee ak ku ñuy retiré kun xool ba nga neex leen ñu ne murid la duñ ca yam tegal la sa saadiq koo xam ne nag yaa ngi wax loo xam ne arrangé wu leen ñu ne kii du murid daa contre sëñ bi gis nga loolu du ay wax ay tappale la beneen bi ci des itam gis nga màggalu kasu rajab gis nga euh, euh, Ablaye Mbaye Peex euh, kii di tudd Ousmane ko mu ne ko waroo ko fi woon a tudd maanaam coxor gi mu ko ëmbal la mën a tudd nëbb ba mu feeñ mais xam nga loolu lu ko gën a nekk gàcce nga xam ne mo bu amoon ay waroon nañ ko kat nga bàyyi parce que moom jëruñu dara réew mi amul dara dara dara lu muy jëriñ réew mi ci boppam rek la nekk gis nga ñii ma gis daal ci ay géwél yoo xam ne dañoo siiw mhm. di wax ci côté bu ne mhm. Alaaji Mansour Mbaye laa ci xam ku sérieux waaye bu dee Xaadim Sàmb ci boppam dong nekk mhm. su fekkente ne Ablaye la ci boppam dong la nekk te te Ablaye Mbaye Péex kay la mu waxoon fii lu leer na woon ba bu bàyyee Ablaye Wade tax ñun Sénégal yëpp ragal nañ ko parce que xam nañ ne moo ko waxoon te itam ci boppam ne parce que wax jooju mu wax wax ju garaaw la surtout ndaje moo xam ne yow amoo fa cër amoo fa baat amoo fa dara dañ laa invité rek nañ mhm. invité ñëpp mhm. kon kay wax dëgg yàlla looy bañ ku fa tudd turu diw mhm. baanaam tudd fa turu diw ndax da lay wàññi dara moo tax gis nga soxor day lekk xolu borom ba mu jeex tàkk soxor baaxul kon su ko defee yooyu yëpp nemmeeku nañ ko beneen bi itam ñi génn di conférence de presse naan ay li fi amoon du fi amaat ak waaw euh, euh, Ousmane Sonko nangam ak nangam di ko jëbërise saa yoon xëyee nit ñi di ko gën a bëgg te wax nii ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñu bare bari ñu ngi rocceeku ci ñoom di dugg biir Pastef su fekkonte ne kon jabolise yi ñu koy jabolise dëgg la su boobaa ñoom duñu leen bàyyi ña fa newoon duñu leen bàyyi mm. waaye koo xam ne dem nga ba jeexal mm. yore alalu réew mi di ko saax-saaxee gis nga alal ji muy jël di ko saax-saaxee di ko jox ay kilifa sa alal ji muy jël di ko jox ay partem alal ji muy jël naan da ci recruter ay ay ay ak i gendarme alal ji mu jël naan da ci jënd gànnaay bu boole woon alal ju jëpp def ko ci dundu Sénégal yi Sénégal ni ñu ko bañee duñ ko ko bañee. kon moom information. Euh, euh, ba tey ci Baye Fallé bi fi Ousmane Sonko ñëwee tamit coow lu bari tamit da cee am ba tey ñu ngi ci côté boobu am na koo xamante ne euh, nee na Baye Fall la def na woo ay télévision yu bari ñu di def conférence de presse naan naan Sonko lii rëdd comme rëdd suñu ndox la rek comme siyaar yi mu doon def dikk lu ne wax na ko Sonko kooku noonu Baye Fall du ma ji tudd turam. ba tey tamit Sonko indi na fi vingt tonnes ciment Mame Mbaye Niang ñëwaat gars yi neen day toppandoo ñu bëgg ñaar yooyu nga global ñu ko nga wax ngi sa sa gis-gis. lu mën a xew daal. président Ousmane Sonko defar na réew mi te toogu ko parce que ni mu defaree réew mi mooy lépp lu mu def rek da gis waa APR génn na dañ ko ci jéem a roy. bon sa gars yi neen APR fee la ne waaw xam nga président Ousmane Sonko daa ñëw. xanaa xamoon ne avant mu ñëw Touba. la bind ci page Facebook am wax ni mu bëggee doxale yoon bi bu ñëwee siyaare xalifa Baay Faal yi dem ci jumaa ji yaa ngi dégg léegi ñu gàllankoor ko ba bi yu baree baree bari xëy na sax na mu ko bëggee woon amewu ko ni waaye dem na ci Baay Faal yi war maat leen kan nga mas a gis mu dem ci kilifa Baay Faal yi te fekk muy laaj réew mi ah ñun de kiñ gisoon Baay Faal yi ñoom daa ñëw fekk taraanga ji ab Ablaye Wade joxoon mu foqati ko ci ñoom bu fekkoon da ko dugal ci keesu réew mi sax ñëpp rafetlu ko waaye da koo jël jox ko ay nitam yaa ngi dégg président Ousmane Sonko nag bi mu ñëwee ànd ak baay Fall yi li ci gën a yéeme sax mooy yére bi mu sol yére bi sol ba pare dem ci dem ci ñoom waxtaan ak ñoom maa ngi dégg sax kooku ngay wax noonu naan ay yére bi nangam ki nangam kenn jox ko ko di wax affaire yooyu waaye kooku xolam a jeex rek parce que tamit kuy dund ci système bi ku ne Ousmane Sonko arrangé la parce que système bi ni ngay dundee mooy lijjanti te bu fekkente ne réew mi dañoo dem ba ndaw ñu jóg bëgg réew mi soppeeku. soppeeku day am de bu soobee yàlla day am de ku liggéey doo jariñu ku bëgg a liggéey ku maanaam ku bëgg a jariñu da nangoo liggéey waaye bëgg a toog doo liggéey doo fàtta xànc ak morom ma di tabaxi état di takk ay jonga loolu de loolu day jeex de day jeex de léegi président Ousmane ko ci boppam bi mu ñëwee dem siyaare xalifa Baye Fall yi waxtaan na noog moom te am nañ ci moom yaakaar loolu doyutut Baye Fall bi mu génnee di def di def ay kiyam yi ku ci ndigalal kan lay wax moom kenn da ko yónni kenn waxloowu ko ci kàddu kan lay wax kon moom xalaatam rek lay wax léegi nag bu mu defee loolu ba pare. Mm. président Ousmane Sonko yónnee fi vingt tonnes ciment. waaw ah. mu mu ne xaw ma yàlla taxut ak nangam ki nangam bëgg ko ñaawal. Mm-hmm. gis nga xol yàlla dañu ko attelé woon. yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi gën ñëpp sax. Mm-hmm. am na saxaabi yi boo xam ne dafa dajeeg benn yéefar bëgg ko mu ne ko ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bi mu ko waxee mu daal koy rey ñu saxaaba yi ñëw kalaame ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ko lan moo tax nga jëf jëf ji mu ne ko da koo waxoon ngir bañ a dee. mu ne ko ndax yaa xarub xolam ba dugg ci biir ba xam ba xam li muy wax dëgg la ci moom wala déet umirtu an uqaatila naasa hattaa yashhadu an laa ilaaha illallaah maanaam ba xadis ba jeex rek ci gàttal yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko man dañ maa digal ma xeex ak nit ñi ba ñu nangoo seere ne amul benn buur bu dul yàlla te man mii kat yàllaa ma yónni suñ ko seeree ba noppi seen seen deret araam na ci man seen alal araam na ci man duma jël seen alal tey itam du ma leen rey mais mbir mi ci def nag li ci def nag ci xol yi bu ëllëgee yàllaa koy hisaab wa hisaabum alallah yàlla moo amee hisaab moo amee ak règle bu ëllëgee waaye président Ousmane Sonko bu fi ñëwee def même bu fekkente ne dañoo jàpp ne ñoom yàlla taxul sax mu di ko def mais am na ñu encouragé dégguma nga ne Mame Mbaye Niang indi fi dara man sax gisuma ko waaye la fekk mu def ko est-ce que mas na koo def ah. kon kay Ousmane ko def na lu baax parce que def gi mu ko def am na ku ko ci jotoroy donte noonam la sax am na ku ko ci jotoroy ëllëg ak ëllëg keneen mën na ko caaroy kon loolu am solo la maanaam gis nga booy def dara lu baax boo ca ragalee ngistal mën nga koo feeñal maanaam boo ca ragalee ngistal nga xam ne da ngay jàpp ne boo ko defee kat ngistal mën na la caa kii ak yooyu bu boobaa nga nëbb ko. wa tuut maanaam wa in tuxfaha wa tuutu maanaam li ngay sarax bi ngay joxe nëbb ko ak bi nga feeñal yëpp am tuyaaba waaye boo ragalee ngistal nekk ca su boobaa na na nga ko nëbb waaye su fekkente ne boo ko defee wa maanaam sirran wa mën ngaa def ci yalu boo ca ragalee ngistal waaye mën ngaa rek ci lu feeñ boo bu fekkente ne jàpp nga ne ngistal du la ca fekk ngir nga mën a encouragé ñeneen mm. nga mën a encouragé ñeneen kon jëf ji ngay jëf mu feeñ soo ko defee ba ñeneen roy la ca da ngay am sa tuyaaba ba pare te doo ca yem mais da ngay amaale tuyaaba yi képp ko la ca roy mm-hmm. kon nag yaakaar naa ne li mu def lu ñu waroon a saluer lu ñu waroon encouragé la lu ñu waroon a rafetlu la mm-hmm. ginnaaw xalifa bi nag sant na ko xalifa Baay Faal sant na ko te na loolu mu def loolu rek am solo waaye ku taxaw ca mbedd ma di wax kooko moom ay waxam kontut fi ñuy jeexale mooy mambay ñaa bi après nga boole ci luñ la laajul rek nga jeexale ko est-ce que nga jàpp ni war nañ cee mën a condamner Ousmane Sonko sa gis-gis. waaw bu fekkente ne dañu xam loi lañ maanaam ñi nga xam ne euh, jàng nañ droit ñi ma si jot a dégg te doyloo seen seeni wax ñooñu de dañ ne dossier bi kenn mënu ko cee condamner man loolu tey man loolu mooy li ma gëm parce que bu fekkonte ne Ousmane Sonko daa doon ko jubadi. kon yaakaar naa ne bañ ko dàqee. ngir yéene woon ko ak torox. kon booba la ñuy la ñuy lëñ bët ay mbiram tëj ko ci kaso bi kon Sénégal yi duñ ko xam waaye gis nga li ko daal mooy la xam nga keroog biñ mujjee def émission yaakaar naa nee naa la firaw na nguuram nga ak nguur gi kiif kiif la benn lañu benn ñoo nuróo lépp daanaka daanaka lépp ñoo ko nuróole benn lañu waaye gis nga bu fekkonte ne tey Ousmane Sonko ku jubari la bañ ko dàqee rek lañ koy tëj waaye bañ ko dàqee yàlla da ko wane wan senegal yi Sénégalais yi gis ko te xamuñu ko woon mm-hmm. waaye léegi Sénégalais yi xam nañ ko xam gu wér di topp programme mu gën a doy te te mu gën a wax lu leer parce que dafa bind livre te la jotagu dara livre boobu nag ñii nga xam ne ay boroomi xam-xam lañ gëstu ko ba xam ne kat lii mu yore bu fekkente ne jël na réew mi tey su ko fi jaaralee réew mi dox. Macky Sall mi li ko nit ñi di bañ bañ bañ bu jëlee livre boobu sukkandiku ci rek réew mi neex. réew mi dox waaye gis nga ñun sénégalais yi lii suñ problème wala africains yi lii seen problème mooy la borom xam-xam bële wax donte day jëriñ réew mi du ma ko def ndax su ma ko defee dañ naan ci moom laa ko jëlee. mais loolu amul sens li am sens mooy li ngay def na doon lu baax ak ku ko mën a wax rek ak réew moo ko mën a jéggaani na doon lu baax nga roy ko def ko comme lu baax la luy jëriñ sa réew. beneen bi ci des itam mooy Mame Mbaye Niang ci boppam nangu na na rapport am na moom nangu na ko. Mm-hmm. beneen bi ci des itam mooy Amadou Ba nee na. Mame Mbaye Niang mere na ko ci ay weer Ousmane Sonko daanaka jurul mi wax na dajale vidéo yooyu rek bu demee tegal ko juge. waaw ndax loolu lañu wax sax nee na moom dañuy témoins yi daal Birahim Seck maam ak kii Amadou Ba est-ce que sax témoins yooyu dina ko mën a am. waaw xam nga mooy mooy mooy li ma doon wax kon réew amu fi hmm. maanaam ñun amuñu justice justice lañ am parce que Birahim Seck mi nga ab livre. Hmm. wax dëgg yàlla kooku kay ay wax moo gën a dëgër sax ki wax. parce que ki bind livre fii cent ans dafiy des. léegi Birahim Seck da euh, Birahim Seck daa war a témoin te moom sax bindaat na benn kii posté ko ci post euh, Facebook am di li mu doon wax voilà léegi Birahim Seck lan moo tax maam bay Niang ba tey mu ragal koo porte plainte Ousmane Sonko ci boppam maanaam gis nga ñi xam dara ci mbir mi ñëw wër ta xoole ba réew mi di yàqu parce que euh, Amadou Ba xam na ci lu leer nañ ñi waaye boo gisee mun a pat daa jàpp ne Macky Sall dana ko ko yàkkal te xamul na Macky Sall ab xolam mayu ko moom jàpp ne moom doo nga man yéene wu parce que Mimi Touré loolu la ko rayoon ci Macky daa jàpp ne Macky Sall bu poussé moom la koy jox yéene na ko ko waaye wallaahi li ma leen di wax ñoom waa APR Macky amul kenn ku mu yéene nguur gi ci ñoom. parce que moom bu Ousmane Sonko dégagé woon day day laajaat troisième mandat te du am de bu soobee yàlla du am kon ñoom dëgg gi nga xam ne moo ne ci ñoom nañ ko bañ a nëbb nañ ko bañ a nëbb nañ feeñal dëgg Amadou Ba daa war a ñëw témoin Birahim Seck daa war a ñëw témoin Euh, ak ak ak ak ñeneen ak Mame Mbaye Niang moomu ci boppam Ousmane Sonko na dajale vidéo yi yooyu yëpp bu demee bu mu wax sax parce que fi mu ne am na beneen pièce bu ñu laaj ci suuf mooy bu ñu ko ne indi document yi ngay wax rapport bi nga ko andi ko mu ko ñu ne ko di waroo que kenn dugalu ko ci journal officiel wala euh, ki publié ko nangam ak nangam foofa it beneen dëgg sarax la kon Ousmane Sonko lim man mooy na indi vidéo yi nga xam ne Mame Mbaye Niang ci boppam moo waxal boppam na indi euh, livre Birahim Seck bi su ñëwee loolu doy na témoin sénégalais yi moom xam nañ li ñu bëgg te duñ ko nangu su fekkente ne dañoo sukkandiku ci ne ah kii ko témoin yi mu indi doyut duñ ko nangu comme ni nga xam ne naa féq boobu def na ko naan day jël juge bi euh, naan day jël dossier bi di ko di ko yóbbu ko yóbbu chambre criminelle Ousmane Sonko day rey ko dundee te moom xam na ne amul benn élément bu dëgër benn élément bu dëgër amu ko waaye léegi koo xam ne amoo benn élément bu dëgër naka ngay fekke am réew nar koo taal nga xam ne am réew réew muy tàkk bu ne nag justice baa réew mu tàkk bu ne boo nee justice sax day mel ne kon jaar na yoon waaye réew mu tàkk bu ne justice baa ko taal mooy di seet ay nit di leen sosal ci koo xam ne yow jeexal na ba pare waaye gis nga maanaam juge yi li ñu war a jàpp mooy kii jeexal na ba pare ku caata dëgg yi mënalu la dara su la dàqee ci diggante bi ñoo xam ne tegu la tegu ko woon ci yoon keneen kii ñëw mën na ko defaraat ba ba mu leer nañ beneen bi ci des itam ñi xam ne da leen a def ay conseil constitutionnel itam ñoo yore baat bu mujj ba nañ ko na leen jox privilège bu ne na leen ko jox waaye nañ bàyyi ba ca dernier ba ñu ne ko mënoo bokk lu ci man fan la koy faje mënatu ci dara te su boobaa nit ñi danañ xam ne que ñii ci kaw dëgg lañ tax ñooñu dinañ ko man ndax korompi bi ñu leen di def léeg-léeg euh, di leen jox yenn xaalis est ce que dinañ mën ginnaaw waaye dama ne xaalis bi xaalisu réew la xaalis bi ñëpp ko bokk moom lañ leen di jox waaye wallaahi ñoom gis nga xaalis bi ñu leen mën a jox nañ ko jël téye na ceel yaa ngi dégg buñ demee ba ca kàddu gu mujj ba ñëpp déposé ñu ne Macky mënoo bokk da leen di mere rek waaye mënatu ca dara da leen di mere dong waaye mënatu ca dara ndax jeexal na. macha allah euh, loo bëgg a tàggoo loo xamante ne laaju ñu la woon ba beneen yoon rek incha allah. waaw xam naa li may tàggatoo mooy. le 16 daal na Sénégalais yëpp génn. waaw waaw na Sénégalais yëpp génn gunge ji président Ousmane Sonko. su ko defee ñëpp génn bañ xam ne kat ñii seen tappale yii du jàll waaye gis nga bépp sénégalais boo xam ne da ngaa toog naan mbir mi sama yu nekku ci bis dana ñëw ma daal sa kaw de te bu boobaa ca man dara Ousmane bi ñu koy fitnaal fii. wala bi ñu fitnaal Abdou Karim politiciens yi lu ñu doon wax sama yónni wu ci mbir ma daal na ci ñoom Khalifa Ababacar Sall bi ñu koy fitnaal lu ñu wax sama yónni wu ci mbir ma daal na ci ñoom président Ousmane bi ñu ñu jàpp ne bu randoo dañuy am dañuy am possibilité am place bu baax ndax nañ seen bopp de que sénégalais yi duñ bàyyi loolu mu jàll mukk kon sénégalais yépp nañu génn yéen politiciens yi nag yéen laay waxal yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci kujje gi bu kenn des fexe leen ba ànd ak président Ousmane Sonko gunge ko bañ xam ne kat ñu sincère ngeen yéen ñëpp benn ngeen su ngeen ko defee tey maanaam tungoom ko ba nga xam ne lii muy wut am na ci ndam su boobaa dana leen teggil buumu jaam gi dina leen libéré Khalifa Sall day jotaat ay droit civique am bu bëggee bokk ci kii bokk keneen ku bëgg a bokk bokk parce que gis nga parrainage bii ñuy def su ngeen yaakaaree ne xeex Ousmane Sonko moo leen di tax a am place parrainage bay ñëw dégagé leen yéen ñëpp te yéen nag gis naa leen de waaye parrainage bokku leen ci dara de fi mu ne nii da ngeen a war doon benn say fexe ba parrainage bi dañ ngeen jiibaane ko ci adduna bi yépp parrainage bi ngeen ne for force day dañ su ngeen mànkoo ci seen biir askan wi jàppale leen waaye bu bu kenn ku ne toogee ci ruqam jàpp ne bu ñu dégaasee kee dama ci am place bu dëgër su boobaa nax nga sa bopp kon yéen ñëpp booloo leen fexe ba président Ousmane Sonko bu wuy ji na Sénégalais yëpp génn ku ci mën a ànd sa jabar sax na ànd ak moom bu yore liir bu muy boot sax na ko boot àndaale moom ñëw ca ndaje ma su ko defee ndax li ñuy xeex dëgg la te gis nga jaamu yàlla balaa mën a am nag dëgg daa taxaw de kon loolu ñun ñun ñëpp nañ ko bàyyi xel nañu ñaan yàlla yàlla may ñuy àgg ca bis ba salaam bu ko defee sénégalais yëpp génn ñu xam ne kat nar yii ñu fi bëgg a teg du fi taxaw mukk bu ko defee kon ñu ngi jaajëfal ñëpp in uridu ila al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu